Pikine Kër Massar Thiès Louga Saint-Louis Kaolack Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. ñu ngi gërëm ñëpp euh, di Euh, màggal borom bés bi di Cheikhul Khadim Serigne Touba nga xam ne tey moom la ñuy àndal màggal yàlla ci lim ko defal euh, di ñaanal yàlla ki nga xam ne tey moo fi Serigne Touba sëñ Mountakha Mbacké di ñaan yàlla mu yàgg fi lool ànd ak wér yàlla may ko li nga xam ne mooy ay nalam di projet yàlla may ko mu yeggale ko ci jàmm suñu teewaay fay fii Touba nag euh, teewaayu jullit gu ñëw ci activité bu mag bii la di màggal Touba niñ ko defee ren nag dañ ne dañuy ñëw lépp li nga xam ne fii suñuy wëllëre la ci biir dëkk bi xaju ci sax waaye nag ñu am luñ ci tànn rek fexe ba ziar moo tax yegg si nañ fii gannaaw bi ñu jógee ndakaaru egsi boru booru heures jaar nañu ci sëñ Fallou Chouaï bu nga xam ne sama sëriñ la sama xarit la sama conseiller la mu dalal ñu bernde ñu ñaanal ñu ñu jóge foofu dem ziar sëñ Amadou Muxtaar nga xam ne moo ñu dalal ci màggal gi bañ fa jóge it la ñëw yàlla may ñu ñu fekke géef yi julli ko ci gannaaw Euh, sëñ Mountakha Mbacké gannaaw julli gi mu ñaanal ñu waaye recevoir ñu ci lu gàtt euh, ñu nuyonteeg moom saafonteeg moom mu defal ñu ay ñaan kon yoon la woon bu ñu génnee foofu nag ñu wéyalee suñu tànk ba fii fekk fii ki nga xam ne moom la tarixa bi dénk kàddoom mu sëñ Bass Abdou Khadre moom it mu dalal ñu waxtaan ak ñun euh, waxtaan gu xóot sax wax waxtaan bu philosophique ba pare eh, ñaanal ñu yeewi ñu ñu fas yéene nag continuer ziar yi ndax am na yeneen kilifa yoo xam ne moom la ñu war a dem seeti nii moo tax taxawaay bi du mun a gudd ndax dañuy bañ balaa ñuy yegg yenn kilifa yi fatu kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal sénégalais yëpp képp kuy ci tànkam pour ñëw ci màggal bi yàlla na la yàlla andi sàcc si jàmm